yéen a ngi sen sen seen mi venka TV. juutal ngeen samay wax ba lok bi dégg ko génn di wax. lima len di conseil nak mooy buy waxati na ngeen ko tegal bitelu ndox parce que yenn yi kuñ laal ci xol rek moo mën a waxee noonu te bu ngeen ko mayul ndox ba mu fatt fii ërël la te man pourtant dama ko bippe rek ba léegi woowaguma ko ba fii may waxee ak yow woowaguma ko beneen bi ci des moom mooy tudd tur man duma tudd tur man ku xam-xam ni duma tudd tur du ñàkk ragal mais seexlu la parce que man dara ragal newul ci man bu plainte di am ko wara plainte man mën naa pelente plainte mais duma ko plainte parce que plainte bu xasse am rek wax ji day jeex te man bëgguma coow lu jeex plainte bu xasse am dañ leen di arranger affaire bi jeex motax ay plainte ak yii yépp nañ ko teg ci suuf dama nek tourner Europe nekk ci ay contrat wu jàmbur ay nit ñu la jël pour nga gàmmul leen période bii mënuma koo booleek di génnaat di génnaat di wax na ma may ba ma ñëwaat Sénégal fii ak dimanche bële di ñëw wala samedi parce que bul fàtte ni Bijou Ngoné man la invité confrontation incha allahu rabbi fii ba ba may ñëwaat Sénégal nag duma génnaat